ma ko fi jëlee ah mais preuve te tey da ngaa toog ak nga xam ne mhm. émission boo xamante ne émission ñëpp at ñëpp koy seetaan ëttub lamb ëttub lamb ñëpp rek damay toog si Aziz Aziz du jug suy seetaan su taalee pencub lamb du fa jóge tànga p ma dem kër Baye Baye du fa jóge kilifa yi ñoo koy seetaan ay Cheikh Modou Kara ay waaw man loolu ma jaaxal ah. mais Mbaye nañu waxante dëgg nag. waaw boo feebaree pharmacie nga njëkk a xalaat. mais déedéet feebar gaay na xam nga lan la dañ naan mag nee nañ mag dafa bëri ay ngelaw. Ah, waaw lu mu def gaay mais Mbaye xam nga lu garaaw <laughs> Mbaye xam nga lu garaaw man mi si télé bi ma ne am na émission làmb. Uh-huh. man xam nga Bécaye ñoo bokk heure. waaw loolu day arrêté mais damay jiitu Bécaye. Uh-huh. damay jiitu Bécaye ba pare. Uh-huh. su ma jiitoo Bécaye. su ma jiitoo Bécaye. après soo ko fekk émission bi jeex ma dem seetaan émission bi mais loolu dafa garaaw de. Ah, suul na gars yi de. ah wax dëgg yàlla te lan mooy ku nekk ak la neex. bàyyi leen ah, non émission boobu am na nekk as yow as bu njëkk ba benn benn débat bu ñu seetaan ñëpp mais yow jékki-jékki rek as ñu seetaan. loolu daal yi li muy joxee di kër yi. waaw kër yi li muy jógee. may bu ma boole samay nit. te doo te doo wax xoolal te doo wax may leen ma kër de yow kër yi ñu ngay wax kër yi daan kër mbay mbay bi ñu direct bi. YouTube bi xam nga ñaata la. Uh-huh. xam nga man ñaata laa woon YouTube bi. 6000 uh-huh. xam nga aaj ñaata la 600000 vraiment 60000 ñu ko doon suivre. aaj waxal mbay la loolu laa feer ma dégg ma ko may de lan moo tax. lan moo tax waaw déedéet lan mau sa mungkin li nga ñëwee rek am. dañuy fo rek. naturellement rek. man bi nga xam daaw ma seetaan am sax damay dama lay seetaan léegi. waaw ah, mais naturellement rek ah liggéey foo kàpp. Uh-huh. bëggal nit ñi. c'est tout.

danoo <laughs> war a désert bu pare ndox ñu bëri xamul loolu. Ah. Ah. <laughs> benn affaire su amee si kii yow soo waxee rek ñëpp dañuy bàyyi. bàyyi la mais médiateur quoi. waaw médiateur la waaw. xamante ne ay coow su amee si waxee rek lépp tegu suuf. nit ñi ñoo baax. xam nga ni man moos lépp nit ñi. doomu mm-hmm. aadama mm-hmm. Sénégal moo baax. mbay Sénégal moo baax. boo demee màggal mhm. ñu ñëw Tiwaawan ñëpp dañuy ñëw màggal mhm. ñu ñëw màggal yëpp dañuy ñëw Tiwaawan mhm. ñooy dem Njaasaan ñooy dem Kaolack ñooy dem Ceneba ñooy dem Kër Baay Laay Séné loolooy Sénégal yàlla na fi loolu sax ñu gën a jubóo même suñu amee problème sax yow soo waxee tekki tekki ta kii ñu bàyyi lépp sa problème yëpp waaw may may dernière question bi boobu la ah, ah samay fils la ñu quoi waaw mbëri moom samay xarit la noo samay waay la vraiment nañ leen di ñaanal yàlla yokk seen taxawaay. mais dégg naa la keroog añ daa ngi ñëw. Ah, la keroog nag mu nga lu. ndeysaan indil gaaw lu rafet ci président bi. Bassirou Diomaye Faye nga ne dafa yaru. waaw dafa dal. nga ne ku dal la la. mbay loolu bëggoon naa mu wax ci diggante bi. dafa dafa yaru na dal na bu ma fi indil ay problème yàlla ko yàlla yokk. jërëjëf bu eh, indil añ bi ay seytaan <laughs> Kouthia moo ñu doon jubale. ah da daan ma woo Kouthia mbay par force day ñëw. yow mënuluma la mais Kouthia sax si waat. mënuluma la daal Kouthia ma wax ci Kouthia. waaw dafa feebar Kouthia la dëkk yàlla na wér. amiin waay te Kouthia TFM la dëkk. suur yi bëñ ak a jote ñoo dëkk te danay xulóot ba mu saf sap des fois bëñ mat làmmeñ ba mu naaj. mais après dañu jubóo ko ñaanal jekk pour mu delloo. maa ngi koy maa lay def nii. na ko buuba baal. yuusu baal ko ñëpp baal ko ñooñ samay nit la nu te bu ma ko waxee bu soobee yàlla bu ko caa wéree dina dellu waaw bu neexee yàlla incha allah jaajëf aju baay